am na lu xale di woy VAR instant bi ma ne ka andil VAR bi. nga teg VAR bi de. xoolal nañu teg VAR bi. nekk si réew mu démocratique moom ay structure yi ñu teg. waaw ngir ñu saytu a génn. waaw di yëgle ay résultats. bay tudd ay chiffres. ma fàttaliku. Alifa dangay naax si li ma fàttaliku daal. Alifa non mais xëy na naax naa. xëy na naax naa mais li ma fàttaliku. xam nga lu andil ah. vaar bi. nga tek vaar bi de xoolal nañu tek vaar bi. gal seen pervers diggu leen bon Abdoulaye ah, ah, jonne ay chiffres la joxe lu leer nañ vaar baangi ni nii baangi ni fi rek doon joxe ci seen seize bi ci résultat yi keroog élection yi diggu leen. nous pouvons nous attendre à un minimum de 57 à un minimum de 57 à un minimum de 57 7 pour le candidat le président Macky Sall. déglu bés boobu. lu mort, wax estimation la joxe. Hmm. dama ne. Hmm. Kéro, tegal varbi. bi. Hmm. dama ne temps bi jot na. ñu ne candidat président Macky Sall. ndokk sabakan. bakkan. ndax mbir mi kat yàlla def na ci jàmm. ndax ni ko ñeneen ñi def oui résultat yi suñu gars yi jox nañu ko ñu dugal ko ci suñu machine yi nekkoon foofa ca siège ba. oui bañ ko dugalee ci machine yi ordinateur yi nee nañu lu mu gàtt gàtt am na cinquante 57. Mhm. au minimum. lu lool laa waxoon. loolu laa waxoon. Mhm. ca nga chiffre bu nga joxe woon. déet du chiffre dama ne il a obtenu au minimum. Mhm. yaa ngi dégg. au minimum koy dugg chiffre mooy. lu mu ndaw ndaw ndaw ndax xam nga lu taxoon booba. amoon na dëkk boo xam ne ñun jotaguñ ko. ma xam ne booba ñun ëppoon nañu loolu. dëkk ba bu ñu ko jotee dëgg. Mm-hmm. ndax ñoo ñooñu nga doon dépouiller. ak boori Italie desoon na quelques euh, bureaux de vote. Mm-hmm. yooyu ba ñu ko dugalee. Mm-hmm. la rës. loolu bokkoon na moo tax ma ne woon lu mu gàtt gàtt. 57 am nañ ko. ndax la ñu concentré woon la ñu xayma woon ñun déjà ëppoon na 57 lool. donc loolu ma waxoon. moom la ñeneen ñi wax ñoom ñëpp amoon nañ chiffres yi dégg nga wax ji. amoon ñoom ñu ñoom ñu ñëw ne. dafa am deuxième tour ma deuxième tour amul ay léewel. Hmm. lii kay Macky Sall gagné na ko ba ñoom ci seen bopp d'accord nañ ko après hmm. kay la ñu naan victoire électronique léegi nañ fi lu ne. Hmm. léegi nañ fi lu ne wante victoire démocratique la ñoo ngi ci sant suñu borom.